histoire Moussa histoire Firawna ak musa war na doy képp ku yor nguur yaakaar ne yaay buum yaay bummi ba mu ne kenn du am doom ju góor sa réew ma yàlla indi na ko doom ju góor joo xam ne àndul ak ndey àndul ak baay ba ci biir palem bi kooku màgg bi moo ko sóob si géej gi kon yaakaar naa ne peuple bi moom ala kulliyaani il aura le dernier mot te tàmbali nañ ko point yu am solo mu mel ni indi nga ñu ci le professeur d'histoire